barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. yaati naa lu tee mu dikkee ñu bi aayatin ci kéemtaan mi rabbi bawoo ci boromam ah lu tee Muhammad andi kéemtaan. isaa bu laaloon ko gumba nga gis bu laaloon ku tax nga dégg bu laaloon ku lu nga wax bu laaloon ku dee nga jóg ana kéemtaan yooyu dem na ak demam Muusaa yatam bu ko sànne mu nekk jaan dem na ci demam Suleymaan bu yokk bu bu yéegoon ca kaw tapem ba dafay naaw comme avion moom ak soldaaram yi ana mu dem na kéemtaan gi gën a màgg ci kéemtaanu alquran di kéemtaan seydina muhammad mi ngi ni suñu loxo mooy alquraanu karim fiihi naba'u maa qablakum wa hukmu maa ba'dakum hmm? lépp mi ngi ci alquraanu karim bi loo jàng-jàng boo ci ñëwee dangay dellu ci gannaaw bu yàggul am na ku tuub ci réewu France la ñuy xoolee asamaan si di gis biddiw yi lépp appareil yi mu ci yore kenn mu la wax ni mu toll waaye dafa gis ci appareil bi loo xam ne gis na téere yépp benn téere musu ko wax bu dul alquran kara la na ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mu tuddee boppam abdul xaq hmm? li li amul kon mbir maa ngi noonu le alquran lépp mi ngi ci biir xam-xam boo jàng yàlla andi na ko ci biir téere gi <clears throat> awlam taatim ndax dikkeewu leen bayanati lu leer naññ maa fi suufil ula li ci biir xët yu njëkk yi téere yu njëkk yi walaw cey an naa naka ñun axlag naam bu ñu leen alagoon bi asaabin ci mbugal min yi balaa muhammad di ñëw ah kon da dégg la xaalu ñuy naan rabbana ay suñ boroom ah law la arsalta lu tee nga yebal ili naa ci ñun rasulan aw yonant fana tabee kon ñu topp aayatika say aaya min xabli jëkkat an nazil la ñuy torox wal nax saa ñuy gécc xul neel kullun kenn ku mu doon ci ñun mu tarabbisun aji nëggandiku la aji niig niiglu la fa tarabusu wéy leen di niik niiku rek fa saw fa fa sa xel si ngeen xam man ana kan asxaabu siraati mooy boroomu yoon sawi yoon gu jub yoon gu yemb yoon gu dal wa man ihtada ak kan ana kan moo gindeeku xisib la de <coughs> kon benn xisib paase na maa ngi dàq sama ñaareelu xisib yàlla na ko yàlla yombal <coughs> koo xam ne dégg na ci dara te leeru ko jotaay bi àttanu ko waaye boo dikkee ca kër ga boo ko laajte dinaa la ko wax incha allah damay bañ ma ubbi buntul laajte kenn ku nekk di laajte dootuma mën a demati waaye lépp lu ngeen dégg ma wax ko ngeen am ci lu leerul bu ñu wee téere boo ma ko laaja dinaa la ko wax doo lu may na bëd déedéet luy téere bi yàlla la feeñal ko rek ummatu muhammad jot ci ko sóoratul anbiyaaw mi ngi noonu le sóoratu saaru yonant yi yàlla wàccee na téeméeri junni yonant ñaar fukki junni yonant ak ñeenti junni yonant muhammad moo leen ñeenteel saar bi yàlla def leen ci tudd tudd gu bëree bari ñu tuddee ko sooratul anbiyaa yi bismillaahi rahmaani rahiim <clears throat> bismillaahi maa ngi sukkandiku ci doole yàlla bismillaahi jiital na ma yàlla ku dul yàlla du yàlla yàlla rek mooy yàlla ki am boroom motul boroom kam ki am boroom motul boroom kamul boroom amul moroom rahmaani yàlla mooy zaahir rahim mooy baatin rahmaan yàlla mooy awwal rahim yàlla mooy aaxir rahmaan yàlla mooy doole biir yàlla mooy dooley biir mooy dooley biti yàlla na ne iqtaraba jegeñ la lool jegeñ na lool lool li naa si ñeel doomi aadama yi xisaabum seen rek la de ah boo xëyee doo gont am na koo xam tay tey tey mooy bésam bu mujj saañ dootu fi ñëwati mukk hmm? am na ko dugg ci bitig bi mi ngi jënd mburu mi ngi jënd bër ndeke piis bale muy seen càngaayam la bu ko xamoon du fa dugg yaa ngi romb maçon baa gas ndeke peelam boobale fan yu néew moom la jël gase ko sa bàmmeel lat ko lañ bii nga gis naan waa ji ndax seer na la ko lat koloñ mu mënoo ko jënd keneen a koy jënd si léegi moom dañ lay suyal bu ñu lay yóbbu bàmmeel hmm? kii nga xam mu toog ci buntu jàkka ji ndek mooy élément bi lay jullee huitaine bi nga gis ci pharmacie bi ndek moom la jënd def ko say bët say bakkan sa gémmiñ sa poqataan mbokk yi nañu ragal yàlla nañu jaamu yàlla nañu bàyyi fen bàyyi ràmbaaj bàyyi wuruj bàyyi wor bàyyi féewale nitu yàlla yi iqtaraba jagañ na lool lin naa si ñeel doomi aadama yi xisaabum seen regle waxum naka ñoom muriduuna ñuy dumooyu fii raflatin nekk ci càggante rek amul benn aaya bu leen dikkee dikkeewaat leen dikkeewaat leen bu du ñu déglu ko def caaxaan rek maa yaatim du leen dikkee min zikrin benn ko min rabbim bi boo seen boroom muhdasin di lu ñu yeesal ak wàcceem illaa bu dul istama oohu ñu déglu ko wum fekk ñoom yàlla abuna ñu ngay fox rek laahiyatan ñu ngay pellal <clears throat> mi ngay wëlëng xulubum seen xol wa asaru ñu ngay yël ñu ngay yël an najwa ay déeyantoo allazina ña nga xam ne zalamu tooñ nañu ñu naan hal kii day nekkul dara illaa basharun Budul bin mbindeef la mislukum comme yéen afata atuna moo ndax da ngeen di njabar wa antum te yéen day tubsiruna yéen a nga gis ngeen di def njabar la <clears throat> xaala ci la waxee rabbi sama borom day ya alamu xam te dana wéy di xam alqawla kàddu gu jib fi samawaati fi samaay ci asamaan wala ard ak suuf o moom yàlla asami mooy aji kon balaa ngeen di wax al alim yàlla mooy aji xamaakoon balaa ngeen di def bal li fi nekk xaalu ñu ngay naan li Muhammad di wax ni ay gént yu jaxasoo la wallahi dug ay gént yu jaxasoo adraasu ahlaamin ay gént yu jaxasoo la bal li fi nekk am na ñuy naan déedéet iftaraaw def koo sos bal li fi nekk huwa moom am na ñu naan shaa'irun woykat la hmm? am na ñu ne Muhammad dafay woy alquran du woy alquran amul ay bunt amul ay amul ay mawdi ah amul muqaddima amul tamhid alquran mooy kitaabullaahil mubiin hmm? fal yi ati naan nañu dikkee bi aayatin ci aw kéemtaan kamaa naka ursila la yebalee fee woon al awala nañu njëkk ña maa amanat gëmul woon xablom lu leen jëkk min xaritam benn dëkk amul benn dëkk bu leen gëmoon ah budul amul benn dëkk boo xam ne dikkoon na ci jamono ñàkk gëm yàlla budul ahlak naa alak nañ ko maa amanat gëmul xablom lu leen jëkk min xaritam ci aw dëkk lu dul alag naa alag nañ ko ay yu aminoon ndax nañu gëm hum ñoom wa ma arsalnaaka yebaluñu la wa ma arsalnaa yebaluñu xablaka la la njëkk illaa rijaalan bul ay góor hmm? yàlla musta yebal benn yonent boo xam ne jigéen la ak lu mu màgg màgg ak lu mu màgg màgg jigéen góor dong la yàlla doon yónni am na ci jamono yële wanoon naa leen ko benn journal mi ngi génne benn jigéen ne dañ ko def elimaanu jumaa léegi ci amérique seetal caay-caay googale elimaanu jigéen bu naree am amérique lay amee ji ah ana égypte ana soudan ana maroc réew yi nga xam nitu nit yàlla yi fa lañ tëdd bu doon lu jaadu la fa lay amee yàlla musta yebal benn yonant illaa bu ay góor lañu nuuhi danañu juux jëm ca ñoom fas alu na ngeen laaj ahla zikri ñooñ xam in kuntum dem nekk ngeen laata ala mun a xamu leen nit ñi nag ñeent lañu allazi yadri wa yadri annahu laa yadri ki xam ki xamul te xam ne moom xamul hmm? allazi yadri wa yadri annahu yadri ki xam xam moom xam na allazi yadri wa laa yadri annahu yadri xam na waaye xamul ne moom xam na ak allazi laa yadri wala yadri annahu laa yadri xamul te xamul ne moom xamul ñeent yi moo am ki xam te xam ne moom xam na fa huwa aalimun fattabi'uhu ki xam te xam ne moom xam na kooku boroom xam-xam la nañ ko topp allazi yadri wala yadri annahu yadri ki xam te xamul ne moom xam na dafa toll ci nelaw nañ ko yee mu jàngale allazi laa yadri wa yadri annahu laa yadri ki xamul te xam ne moom xamul kooku jaaxil la nañ ko tette dana jub ki gën a bon kay mooy allazi laa yadri wa laa yadri annahu laa yadri fa huwa daalun mudillun fajtanibuhu ki réer xamul ne moom dafa réer dafa sànk dafay sànke nañ ko moytu kon dégg nañ kàddu gi kon mbir maa ngi noonu la fas alu na di laaj ahla zikri ñooñ xam-xam in kuntum dem nekk ngeen laa na tollu leen ci fu ngeen di xamee wa maa jaalnaahum defuñu woon yonant yi jasadan ñuy ay yaram kese rek <clears throat> laa yaakuluna taama duñu lekk ñam wa maa kaanu nekku ñoon xaalidin di way biil yonant yi dañ doon lekk di naan dañ doon am ay soxna dañ doon am ay doom summa am topp ñu dëggal leen alwaad diggu yàlla ba fa anjaynaahum jàmmal nañ leen wa na nashaa'u ak ñañu soob ci suñu ngëneel waa halak naa ñu halak almusrifiin ña nga xam ne ñoo di yàqakoon <clears throat> laqat ci dëgg-dëgg ansal naa wàccee nañu ilaykum jëm ci yéen kitaaban téere te mooy alquran fii nekk na ca zikur zikurukum lu leen di fàttali lu leen di waar afala lu ndax du ngeen xeluwaay <clears throat> kam na xasam naa Hmm? bari na bu ñu njatamalee min xaritin aw dëkk dëkk boo xam ne kaanat nekkoon ne zaalimatin di aji tooñ wa ansha naa ñu sos ba adaa gannaaw dëkk boobale xawman ay nit aaxari na ñeneen bari na dëkk bu doon def ay njuumte yàlla jëlee leen fi ànd yeneen dëkk yoo xam ne ñoom dëkk yu baax lañ yàlla na ci yàlla boole suñu dëkk yi hmm? yal na yàlla fay leen yàlla fay leen falama axasu ba ñu demee ba yëg ba ñu demee ba yëg ba asanaa suñuy teeng teeng wañso isaam ci saa si nga gis leen yar ko doona ñuy saju ñuy daw daw yu métti min ci mbugal laa tar ko du bu leen saju war jëw na dellu ilaama jëm ca la nga xam ne utiftum xéew taleef na leen bii ca loolale wa masakinakum seet leen seen kër yi leen yàlla mayoon ay étage lii lépp yàlla mi ngi leen koy fàttali xam leen yàgg-yàgg laal la ko ngir nga yéen xam leen ne bés dana ñëw tusaloon des na leen laaj de <clears throat> xaalu ñu ngay naan yaa way la naa woo naa suñu tos kore innaa naka ñun dey kun naa nekkoon nañu zaalima ne di way tooñ <clears throat> fa zaala dañul tilka daawaahum mooy seen wax mooy seen woote xataa be jaal naa ñu mu jël leen xasidan ñu mel ni lu ñu góob xaame dina ñuy way giim mel ni safara su fay wa maa xalaq na sama binduñu asamaan si wala ard ak suuf si wa maa bay na ma ak li seen diggante laa ibina ngir ay caaxaan de déedéet <clears throat> hmm? law arad naa bu ñu nommoon an na taxasa ñu jàpp lax wan aw po aw caaxaan la taxas naa nekk na ñu jàpp ko min fi ñun in kun na andem nekkoon nañu faa ileen di waay jëf loola le fi nekk naqsifu danañu xalab bil xaqi dëgg alal baatili ci neen fa yat maw mu daal di ko moñoxe fen lu mu yàgg-yàgg dëgg dina dikk moñoxe ko hmm? bu dëgg dikkee ci kaw fen fa isa ci saa si saayiqun muy aji bëxër ñët waaye ana lu tax dëgg tey nit mënu ko wax boo lekkee dërëmu fenn dootoo mën a waxati dëgg gis nga fen ak dëgg mus nañoo tukki ah fen aw ak dëgg mus nañoo tukki bu ñu dikkee rek dëgg mooy jiitu ah ñun de ay doxam doxandéem lañu ndékki lañu bëgg ñu ne ndékki bi jeex na ñu dem feneen ñun de añ lañu bëgg ñu ne añ bi jeex na bu ñu dikkee ci kuy jaay lekk ñun de dañoo xiif waaye amuñu njëg ñu ne wéy leen ñun borom njëg lañuy xaar ba jant bi sow ñu fanaan ci seen xiif kenn nelawul ba bët set dëgg mi ngi jiitu rek fu mu dikkee wax dëggam du lekk fen na ko léegi nag bàyyi ma man ma jiitu fenn daal di jiitu dëgg ba ñu dikkee ci benn restaurant fenn daal di ñëw ne jox ko benn palaat mu jox ko benn palaat mu ne ko tegal ma fi benn palaat mu tegal ko benn palaat ñu lekk ba pare mu ne ko jox ko naanteef mu jox ko naanteef mu ne ko jox ma naanteef mu jox ko naanteef fen daal di ñëw taxaw ci comptoir bi ne delloo ma weccet bi mu ne ko yow kañ nga fi taxaw ba fay bay la bay laaj weccet mu ne seetal junni boobu nga boxam léegi dugal ko léegi ubbi mu ko naa ah, wax dëgg kay dëgg xam na ne fen la waaye mënu ko wax bu ko waxee ñu jàpp fen jàppale ko kon boo gisee léegi nit ñi mënatu ñoo wax dëgg yow kii ministre la dafa ne xaalis andil la kii dem gàññe ci loterie daal di la andil kële daal di def ay mbuxumam andil la xam nga ne fi mu ko jëlee lewu ko waaye yow yaa ngi bëgg a yeggale sa batiment bi ah wala yaa ngi bëgg am benn 4x4 dootoo waxati dëgg mbir yaa ngi noonu yàlla yàlla dimbale ñu waaye ni Seydina Omar li mu wax nañu sax ci dëgg bu yeboon nañu suufeel ànd ak dëgg te loolu néew na nañu dàq fen doonte fen daf ñuy yéegal te loolu it néew na kon nañ ànd ak dëggab yàlla bi rek kon yàlla nee na bu dëgg dikkee rek fenn ba xër ñépp fa iza huwa saayiqul mu daal daw dem walla walakum dana leen ñeel al waylu tos ko rek mimma tasifuna la ñuy meññal walahu dana ñeel lahu aji sax la ñeel yàlla man fi samawat lépp lu ci asamaani juróom-ñaar wala ardi ak suuf si <coughs> waman ak ka nga xam ne indahu waman ak ña nga xam ne indahu ñu ngi fa moom la yastawuna duñu gandangal lu an ibadati walis jaamu yàlla wala yastahsiruna duñu gàttañ lu duñu doggantiku duñu niig niiglu duñu tayal duñu yokkot fu ñu nekk ñu ngi jaamu yàlla ya rek yu sabbiwuna ñu ngay sabbaal yàlla allah la guddi lu mu lëndëm wan naxar ak bëccëg la yaftaruna duñu sos duñu duur duñu nar am li fi nekk yéen day gaañ nga xam ne yéen a bañ a gëm am i wala dañoo jàpp alihatan minal ardi ci suuf si hum ñoom yunsiruna ñoo nar a dekkil jaam yi ëllëg déedéet ñaari yàlla bu ñu amoon ne gën asamaan ak suuf yàqu na ah kii bu ne nañ jëm penku kii ne nañ jëm soow soow bu ñu xàccoore ngir ma yàqu lawkaana cey bu nekkoon fii maa ci ñoom ñaar aalihatun boroom illallah bu dul yàlla la fasadata ne gën a yàqu dikkee na leen fa subhaanallaay tuubiru bi yàlla fa subhaanallaay sellal na ma yàlla ci lépp lu mu sellal boppam rabbil arsh yàlla mooy borom arash amma walis jomb na yasifu na lañ koy mellal laa yusalu deful laaj amma yafalu ca la muy def waxum ñoom koy yusaluun la def di laaj amit taxasu wala dañoo jàpp min dañoo jàpp ku dul yàlla aleer dan def ko ñuy ay boroom xul neel xaatu dikkee leen burhaanakum seen lay haza alquran gi zikru fàttaleku waay la ma yi fàttali ko waay la man ma ya ànd ko ànd ak man wa zikru fàttali ko waay la man xabli ñu ma jëkk balli fi nekk ak sawum ci lépp ci doomi aadama yi laa ya alamu ne dañjul xam alxaqa dëgg te wax fahum naka ñoom mu ëddan waaye du mooy lañu wa ma arsal naa mosu ñoo yebal min xablika la la njëkk illaa bu dul wa ma arsal naa mosu ñoo yebal min xablika la la jëkk min rasulin aw yonant illaa ndare illaa lu dul nuuhi dañoo juux ile jëm ca moom annahu luy mbir tey mbir laa ilaha déet buur bu ñu woowe jaamu jaamu ko di jur jàmm ñàkk koo jaamu di jur fitna amul illaa ana man faa bu duni na ngeen ma jaamu waqaalu ñu ngay naan ittaxada rahman yàlla dafa jàpp wala dan doom déedéet lam yalit walam yulat walam yakun lahu kufanahad <clears throat> subhaanahu sell ñeel na yàlla bal li fi nekk day malayka yi ak jinne kondorong yi lépp ibaadun ay jaam lañu mukarramuna yeddi yu ñu teral rek ah laay sabiquna du ñu jiitu yàlla bil xaw xawli ci ay kàddu te waxum ñoom bi am ri ci ndigalu yàlla ya amalu ne dañ koy jëf de <clears throat> yàlla mu yàlla xam ne dey wéy di xam maa bay na ay dim la leen njëkk la nekk ci seen ndend wa maa xalfam ak li ci seen gannaaw wala yashfa'una du ñu mën a ràmm illaa lu dul illaa ndara li man irtada ki yàlla gërëm te mooy Mouhamed Muxtaar mooy Mouhamed Murtada wahum naka ñoom mushfiquuna waaye nodd noddaaral lañ min xasiyata ci ngi ragal yàlla wa man yaqul képp ku wax minkum ci minhum ci ñoom inni ilahun man yàlla la min duuni walit lu jaas yàlla fa zalika kooku kàddoom googale danañ ko fay jahannama safara kazalika na ko noonu nag si dañuy fayee azalimina tooñkat aaya boobu di ñëw yéen ñu jàng géographie wala yen ñu jàng astronomie walla astrologie ndeke jant bi du benn jant ndek ay million ngi million jant la bii moo ñu gën a jegeñ moom lañuy gis ci fukki waxtu ak ñaar dootuñ ko gis fukki waxtu ak ñaar ay weer ndeke weer du benn de ay junni junni wer ñoo am ñun ci suñu système bi système solaire am nañu fanweeru weer am nañu fan fanweeru weer ak benn am na suuf su nekk suñu gannaaw ñu ngi ko tuddee mars li am ci ay weer du benn du ñaar du ñett am na beneen suuf de tuddee jupiter ñu ko tuddee mustari lii lépp ay àddina la yàlla ne na lépp benn la man yàlla man maa ubbi Moy big bang bi ngeen di dégg moy explosion bu njëkk boobu amoon ci la jant yi feeñee biddiw yi ci la feeñee wogg yi ci la feeñee mooy planète yi ci la alam yara ndax gisul allazina kafaru ña weddi woon yàlla an na samawaat naka asamaan yi wala ard ak suuf yi lépp kaanataa nekkoon na ñoom ñaar rataxan di waay ñebaloo dañoo ñebaloon doon dank fa fatarnaahumaa ñu yërale leen waa jaal naa ñu def minal maay ci ndox kulla shay'in hayyin lépp luy dund rek yàlla ne def naa ko ci biir ndox mi afalaa yu'minuuna ndax du ñu gëm waaye hmm? wa jaal naa def nañu fil ardi ci suuf si rawaasiya ay daaj ay montagne montagne yoo xam ne ñoo téye suuf si du baaj baaji boo demee ci Asie montagne bi gën a rëy mooy Himalaya dem na bi ay juróom-ñetti kilomètres ci kaw boo ñëwee ci Afrique doj bi gën a njool mooy bi nekk jaaro ci wetu Tanzanie boo demee amerique doj bi gën a njool mooy Andis mi ngi nekk wetu Santiago bu Chili lii lépp yàlla moo ko def dëggalee ko suuf si am na ñuy naan yàlla moo wàcce borom xam-xam ngir dimbale jaahil yi ah yàlla moo indi borom alal yi ngir dimbale baadoolo yi lépp lii ci aaya bi la bokk lu mu teg anta mii da balaa muy baaj baaji biim ak ñoom wa jaal naa def nañu fi haa ci suuf si fi jaajan ay xàll subulan ak i mbedd lii lépp la allahum ngir ñoom yaxta lu ñu mën a génn ñu mën a gindeeku wa jaal naa def nañu wa jaal naa mujjal nañu asamaan asamaan si saxafal mu doon aw téeg mahfuusan di lu ñu ottu dara mënta dugg ci biir asamaan si bu lu coobee rek yàlla waxum naka ñoom mu riduna waaye dummoo lañu an aayat naa wali suñu aay woo moom yàlla allati yàlla mooy borom ba nga xam ne xalaqa moo bind al-layla guddi wa nahaara waaw yàlla dem moo bind bëccëg wa samsa seet leen jant gi wa nahaara seet leen biddiw bi seet leen weer yi wa samsa seet leen jant bi wal qamara seet leen weer bi kullun bu mu doon ci moom yasbanu ñu ngay féey fil falak ci biir nguunu gi jant bi nekkul ci asamaan si de ci diggante bi la nekk suñu digganteeg jant bi dem na cent cinquante million kilomètres te lii lépp ci woon asamaan bu njëkk bi la nekk mbokk yi yàlla fawul fawantumul <clears throat> def nañu wajalna jaal naa mu jël nañu li basharin wa maa jaal naa ñu li basharin ñeel doomi min xabli ka jëkk la yow muhammad sallallahu Alaihi Wasallam al khulda, kenn du béel képp ku dikk àddina da nga génn àddina de afa in mitta ndax yow boo dee fa um naka ñoom alxaalidina ñooy waay béel dee duñu béel de képp ku ñëw ku dugg àddina da mos a génn àddina kullu nafsin zaiqatul mawti hmm? bakkan bu mos dund danga nga mos da nga la dee de hmm? man lam yamut moo yamutu haraman lil mawti kaasun wal maru saayiquha ku deewul ngir màggataay da nga dee ngir afu bu jot dee day am na kaas kaas boobale amul kenn ci ñun waaw waaw bu dul dana ko kiit dana ko ñam de Hmm? man lam yamut bi sayfin maata bi xayrihi te addatitul asbaab wal mawtu waahidu boo dee ci géej walla nga dee ci jéeri ji wala gaynde fàdd la wala safara rey la dee moom génn ak bakkan dong la foog nga dee rek de comme digg nga àddina foog nga génn àddina wa nablukum dana leen nattu <clears throat> bi chari yenn jamono yàlla andi musiba andi xiif àndi mar muy seet ndax da ngay caalit wala dangay ngay nangul yàlla wal xayri yenn jamono yàlla andil ñu yàlla yiw yiw googu di seet yëpp fitnatal muy ngir nattuñu ngir lëgle watur jaaw na des na leen delloo lay naa jëm ci ñun de wa isaara akan gis na la alladina kafaru ña nga xam ne dañoo weddi yàlla bu ñu la gisee yow muhammad sallallahu alayhi wasallam in yattaxizuka duñ la téye illaa xuswaan bu dul di la mbellee di la kokkali naan muhammad bi nga xam ne amul alal muhammad mi nga xam ne amul kër ah mu naan yàlla moo ko yónni kii naka la ko yàlla di yónnee ñu naan ahaza ndax kii di muhammad allazi mooy ka nga xam ne yaskuru mooy tudd alihatakum seen yàlla yi ah, waxum naka ñoom day bi zikri rahmaani saa soo leen tuddalee rahmaan rek hum ñoom kaafiru ñuy waay weddi ko xuliqal insaanu bindeef na doomi aadama min ajalin ci yàkkamti doomi aadama moo yàkkamti wallahi doomi aadama moo yàkkamti hmm? na yëpp sotteeku tey te xamoon ne diw léppam motandoo na lu ci tegu mooy xamoon nañ du ko jik ah waa ji léppam motandoo na lu ci tegu mooy xamoon nañ du ko jik kon ndànk-ndànk rek atta anni min arrahman wal ajalatu min seytaan ndànk boo gis yàlla la àndal gaawante goo gisa seytaan la àndal kon àndale na tekk ak tey ya kon sa uriikum danaa leen woon aayaati samay aaya fala tastajiluni bu leen ma yàkkamti wa yaquluna ñu ngay naan haada Euh, mata ana kañ xaasal waalu bi la dikk in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëggal law mu tey bu xamoon alladina kafaru ñi weddi xii na bés a ngi ñëw bés goo xam ne kenn du mën a fanqal boppam safara xii bés boo xam laayu ku fu duñu mën a fekk an wujum seen kanam an naara safara <clears throat> wala an zuhurim ngoli seen gannaaw wala am du caagal ñoom yun saruna waaw des leen dimbale de balli fi nekk te atim dana leen dikkee tukki àddina baxtalan ci mbetteel bu dikkee ne fatafato mu daal leen gëlëm loo fatafato mu daal leen jël mbett loo fatafato mu daal leen ëlëm loo falaay setoon du ñu àttan raddaa delloo ko wala am du caagal ñoom yun saw na def leen négandi de wala kat ci dëgg-dëgg suuf si ay yëjjeef na mi ngay mbellee mi ngay kokkali nit ñi ñu ngay kokkali bi rusuluñ ci yonante min ko balaa ngay ñëw waaye faxaaqa daal dina daal dina nërmalu billadina ca nga xam ne saxiru dañ doon reetaan di kokkali minum ci ñoom maakaanu lañ nekkoon yastahzuna doon ko kokkali de yàlla nee anak man kan man anakan yaklaaku moo leen di sàmm billali ci guddi wan naar ak bëccëg bu yàlla sàmmuloon doomi aadama ni ceeli ya di fëkkee ay cuuj non la seytaan di fëkkee doomi aadama waaye yàlla mo leen di sàmm guddi moo leen di sàmm bëccëg mu ne rahmaani ci yàlla ya balli fi nekk hum ñoom an zikara bi mu fàttali ko seen borom mu ëridoon dañ koy du am wala boog lawum dañoo am alihatun ay yàlla yàlla yoo xam ne na naw moo leen di tere min dun naa walis ñun laay sa doon du ñu attan nasra anfusim dimbale seen bopp ah wala du caagan wala du caagan du ñu attan laay sa doon du ñu attan nasra dimbale seen bopp wala hum du caagan ñoom yu sabuna waaw ñuy mën a suqali wala di xettali wala di sippi min naa ci ñun amul fenn foo xam ne dañ nañu de amuñ fu ñu leen di di amuñ fu ñuy amee àndandoo goo xam ne àndandoo kooku dana àndaal ak ñoom ba ñu rëcc min naa ci ñun de fu ñu jaar daañu daj ak ñun balli fi nekk mataana bànneexal nañu xaawulaay ñii waa abam ak seeni baay xataa taala ba yàgg lool alim ca ñoom al umur dundu ga hmm? afalaa yaraw na waaw moo ndax gisuñu ah, aaya bi na ngeen bàyyi ci xel aaya bi bu fekkee ci wàll zaahir la ndeke géej gi mi ngi lekk suuf si rek ndeke géej gaa ngi lekk suuf si boo gisee bu njëkk carte bu senegal nga gis ko tey da nga fekk océan Atlantique mi ngi dund mi ngi dugg rek hmm? yàlla nee na moom balaa àddina gi jeex suuf si suuf si dana lekk euh, su ndox mi dana ko lekk waaye am na beneen firi mooy saa su nekk yàlla dina dikkee jamono fekk koo xam ne yaakaaru jamono la woon koo xam ne bu nit ñi tiitoon mu defal leen bu ñu jàqee mu dalal leen bu ñu ñàkkee mu may leen bu ñu réeree mu gindi leen yàlla daal di jëlee kooku ñu xool ndeyjoor bu nit ñi jooyee du ñu gis kuy fomp seen rongoñ ñu xool càmmoñ bu nit ñi jaxasoo du ñu am ku leen dalal saa su nekk lii dana am ci jamono yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi yal na yàlla may ay kilifa yoo xam ne fu ñu toll rek ñu ngi ñuy baaxe di ñu dimbale yaa rabbi am kilifa yombul yàlla nañ yàlla may kilifa yaa rabbi yàlla nee na noonu rek afalaa yaralu ndax gisuñu an naa naka ñun dey naati danañu dikkee alarde suuf si nan xusuwaa di ko wàññi min atraaf yaa ci ay wàllam waa lool na buy xew afahum naka ndax naka ñoom alxaalibu na ñooy way not déedéet xul neel innama déet bu dul unzirukum maa ngi leen di xupp bil wahyi lii ma yàlla juux moom laa leen di waxal wala yes moom waaye du dégg nag asummu aji tëx addu'a ak woote isama ndéem yun sax na ñu ngi leen di xupp yàlla ne doomi aadama bu demee nag ba mbugal laal ko nga dégg muy coow ana lan laa def yàlla ana lan laa def yàlla ana lan nga def yàlla yàlla la moom moo tax bu nit dee man day saa suma tiimee néew li may wax mooy lii rek alhamdulilah ndax yàlla duggul ci moomeelu kenn kuy dugg ci moomeelu keneen yaay tooñ waaye fa lillaahi ma axasa wa lillaahi ma abqaa li mu yóbbu moo ko moom li mu fi bàyyi moo ko moom ñi dem du seen njàmbar moo tax ñu dem de ñi fi des dowul seen njàmbar moo leen fi bàyyi ñàkk saabu jot rek kon mbir maa ngi noonu la wala in masatum bu leen laalee nafatun ak ëfin wala nafatun ak yëmmiin ah ak waliin min azabi rabbika sa mbugali boroom la yaqulana da nga dégg ñu naan yaa way la naa ay woo nañ suñu wootee nañ suñu toskore inna kunna ndëkk ñun day nekkoon nañ zalimin di way tooñ buñ niñ buñ ñëwee yowmal qiyaamati yàlla daal di génne balance am bi teg <clears throat> wana daa ñu teg almawasina balance alxista yay aji kocc dañoo jubbe koch li yowmal qiyaamati bu kerogee sa lu nyutek ñu teg ko ndeyjoor sa lu bon ñu teg ko càmmoñ sa lu baax bu lëngee sa lu bon nga jëm aljana sa lu bon bu lëngee sa lu baax nga jëm safara bu ñu nga dem la araf foog ñu ramu wala nga dem safara foog ñu ramu wala hmm? na yàlla dimbalañ rabbi bu kerogee falaa tuslamu deeful tooñ nafsun bakkan chey an ci dara wa in kaana donte nekk na misqaala xabatin lu mel ni aw pepp min xardalin ci aw bakkat lu mel ni pepp foñño yàlla du ko tooñ ci nit du ko teggil nit ci sa jëf ju baax du ko yokkal nit fekk defoo ko ci jëf ju bon wa in kaana donte nekk na misqaala xabatin comme pepp min xardalin ci aw bakkat atey naa daañu dikkee bihaa ca loola le wa kafa doy na binaa ci ñun xaasibiina ci war way rek le wala xad atey naa joxoon nañu Muusa wa Haaruna alfurqaana luy teqale dëgg ak fen wa diyaan ak leer wa zikra ak fàttaleku lil muttaqiina ñel way ragal yàlla yi allazina ña nga xam ne yaxshaw na ñu ngay ragal rabbu seen borom bil xaybi ci li fàddu hum naka ñoom foo leen fekk mushfiquna dañu ne nugum di ragal mina saati ci tukki àddina wa haza téere bi ñu di alquran zikrun fàttaliku waay la mu baarakun bu ñu barkeel alquran kawam barke la suufam barke la kanamam barke la gannaawam barke la hmm? wa xayru maa yutlaa wa maa yuqaal kitaabu rabbina lépp lu gën ci li ñuy jàng walla lu gën ci li ñuy topp walla lu gën ci li ñuy wax mooy téereb yàlla bi anzalna wàcce nañ ko afa antum ndax yéen munkiruuna waaye sib ngeen waaye fakk ngeen lahu ñeel ko wala xat dëgg-dëgg aatay naa nañu ibrahim rushdaw njubam nga min qablu jëkkat lii wa kunnaa ñun day nekkoon nañu aalimiina di waay xam bii ci yon yàlla ibrahim yon yàlla ibrahim moo njëkk dalal gan moo sol pantalon tubéy moo njëkk a dugg néegu moom moo njëkk a bejjaaw moom moo tabax kaaba gi jëmm ji de jëmm ju baax la ah is fàttalekul mu waxee li abihi ñeel baay taxam du baay bi ko jur de yonte yàlla muhammad boo ko kontelee maam ba ci aadama kenn musu cee mooy yàlla kon kii baay taxam la mooy taaruux ah. kon kii mu tudd fii baay taxam la azara yonte yàlla ibrahim dañ ko don defal ay estati jox ko ne ko demal jaay boo jaayee nga andi alal gi loo ci am bénéfice nga jël ko nga jëndee loo lekk mu takk ay buum ci baatu estati di leen diri rek man yashtari maa yadruhu wala yanfa'uhu ana kan mooy jënd lu koy lor te du ko jëriñ mbokk yi ana kan mooy jënd dana yendo daw ba jant bi soo kenn du jënd bu fekkee gaa ngeen sangu ci gi di serlu mu dem di fa dugal statut yooyu naan ndax du ngeen naan waaye sonn ngeen ñu daal di mer yooyu Ibrahim boo bàyyiwul lii wallaay suñu yàlla sa mujj du rafet waaye ñoom kay la seen mujj rafetul waaye mujjug Ibrahima rafet na ba tey ji ñu ngi koy tudd ah <coughs> is fàttalekul xaala ba ib li abi ñeel baayam wa mi ak nitam mu ne maa haasi yi ay xërëm lan lañu àllati xërëm ya nga xam ne antum yéen na waaye daakaa ngeen waaye sukk ngeen di leen jaamu xaalu ca la ñu waxe aa ñun dey wajat naa fekk nañu abaana suñuy baay abid na ñuy waaye jaamu laxaa ñeel leen <clears throat> xaala ci la waxe moom ibrahim ne laxat kuntum yéen day nekkoon ngeen antum yéen ñi wa abaakum ak seen baay yi fii dalaa leen ci cànkute mu binu gubér xaalu ca lañ waxee aji itanaa ndax danga ñoo dikkee bil xaq ci dëgg am anta wala yow mina laa na yaa ngi bokk ci waay caaxaan yi <clears throat> xaala ci la waxe moom ibrahim bal li fi nekk rabbukum seen boroom rabbu samawaati mooy borom asamaan yi wala ard ak suuf si allazi mooy borom ba nga xam ne fataru na moo leen fent wa ana man dey ala zalikum ci seen loolu mina shahidina maa ngi bokk ci waay seede yi ah Ibrahima mu ngi bëgg a fexeel seen estati yooyu la hmm? dañ doon def estati yu bëri lañu amoon bu demee ba seen bésu feet yi ñëw ñii andi ay nag ñii andi ay gëléem ñii indi ay xar ñii ay béy ñii ay ganaara ñii ay kanaara ñu togg ko togg gu rafet daal di ñëw ci néegu estati daal di ko teg dem ci àll bi bu ñu demee balaa ñuy ñëw ay sindax ay kaña ah ay janax ay yalt ay unku jaar ca bu ñëwee bu ñu gisee tànk yooyu ñu ne ay ah, yàlla yi barkeel nañu lekk nañu ba pare nañu lekk Ibrahima nag benn bés ñu ne ko Ibrahima foog nga teewee loolu mu ne leen man mënuma ko teewee damaa feebar inni saqimun ñu daal ree ne defaroon xas suñu yàlla yi ñaw ak yàlla yi jàpp nañ ko yonte àll Ibrahima bàyyi ba ñu dem ci àll gi. mu jël sémmiñam dem gor seen estati yàlla yooyu yëpp ba mu des benn ba mu daal di ko gàll sémmiñ ba ba ñëwee dugg ñu fekk seen yàlla yëpp gor nañu leen ñu ne kan moo def lii am kenn ku ne man de xam naa benn gone gu ñu naan Ibrahim li muy yekkal yàlla yi ku dem moom moo ko def ñu ne woo leen ko ba Ibrahima ñëwee ñu ne ko eh yow Ibrahim ana moo def lii ci suñu yàlla yi mu ne laaj leen ko makki fiiraanga moo ko jàpp gisoo ni mu dammate yi tuuti gisoo ni mu gàddoo sémmiñ gi ñu ne ko xam nga ne kii mënut a jóg fa mu nekk naka lay dammee li mu ne kon yéen a ñàkk fayda di jaamu loo xam ne mënut a jëriñ mënut a yëngu bu ko weñ tongee sax mënu ko dàq ngeen koy jaamu ci lañ ne nag Ibrahima bi buñ ko fi jëleegul mu yàq suñu dina nañ ko lakk ci lañ tàmbalee di dajale seen matt yi daal di ko taal ba boo ko tiib ficc ne koo tiimati yàlla moom lay nettali fii ne watallaahi ibrahima mi ngi naan watallaahi eey giñ naa ci yàlla laa kii dana dinaa fexel asnaamakum seen xërëm yi ba ada antu wàllu gannaaw ba ngeen ne waqeet mudbir na di waay joxe gannaaw ibrahima ci la duggee ca néeg ba fa jaalahum mu def leen jusaasa ñuy ay fejit fejit illaa kabiran bu dul ba gën a màgg lahum ñeel leen lii lépp la àllam ngir ñoom yar ji una ñu dellu ilay ca seen yàlla googale kon mbir maa ngi noonu le ibrahim xaalu ca la ñu waxee man faala haza ana moo def lii bi alihatinaa suñu yàlla yi innahu naka moom day lamina na mu ngi bokk ci waay tooñ yi xaalu ca la ñu waxee samina ñun day dégg nañ fatan aw gone yaskurum bu leen faral di tudd ñu ngay naan lahu ñeel ko ibrahim xaalu ca la ñu waxee faatu bi dikkee leen ko ala ayu ci kanamu nit ñi ci bëti nit ñi na ko ñëpp gis la àllum ngir naka ñoom yashadu ñu seede ndax moom la wala du ibrahim xaalu ca lañ waxee a anta fa alta yaa defaasali bi ay bi alina suñu yàlla ya ibrahim xaala ci la waxee balli fi fa def nako kabiruhum sen seen yàlla gu mag gi moo def xaasa gi fasaluhum kan moo leen in kuntum in kanun dem nekk nañ yantakna di tudd fa rajow ci la ñu delloo ilaan fasum ñuy ñu ne ah Ibrahima day li muy wax dëgg-dëgg moo neex yàlla déedéet suñu yàlla yi duñu ay yàlla daal ah fa qaalu ca lañ ne innakum naka yéen day antum yéen laa wax azaalimu ne waaye tooñ ngeen su ma topp nukisu la ñu jattee fee la sëggalee ay alaawasim seen bopp sëgg ba ci kanam ah ñoom neen sooma soom ñu ne laqad alimta yow day xam nga maa haulaay déet yii yante ko ne di tudd xaalu ca lañ xaala ci la waxi seydna Ibrahim ataabudoon ndax da ngeen di jaamu min dunillaay walis yàlla maa loo xam ne laa yan faakum du leen jëriñ shay'an ci dara walaa yaduruk du leen xaccal njëriñ walaa yadurukum te du leen lor du leen jëñal lor uffin mbas la lakum ñee leen wali ma doon ak li ngeen di jaamu de min dunillaay walis yàlla afala taaqiloon ndax du ngeen xelu ana lan la ñu wax hmm? ñu ne nañ ko lakk ca lañ dajale ay matt dajale matt yoo xam ne kenn mun la koo wax ah même ku mun ku munta taxane dafa yónnee xaalis ñu taxanal ko mu jigi picc munta naaw tiim ko ci lañ demee ba mënuñ iblis daal di soppee ko doon aw màgget ñoo ci ñoom naa lu ngeen di def waaye ñu ne kii de lañ bëgg a sànni ci biir safara si waaye kenn mënu ko jegeñ mu ne da ngeen di wut aw mbaq mbaq mbaq wala yeen ñuy lañ ibrahima di ko jox ko ay ñu ko ni bali kano di génnee ci kano ñu bugg a sànni noonu ibrahim malayka yëpp daal di yuuxu ee yow yàlla borom bi tey ci asamaan si amul kenn ku lay jaamu amul kenn ku lay wéetal naka ibrahim ee yow yàlla yërëm ko yàlla ne ibrahim man maa ko bind namarus man maa ko bind safara si man maa ko bind bu ma ibrahima ñaanee du yëg métitu safara si ñu ci ibrahim ne ko ibrahim tey ngaan ñaan yàlla mu ne ko xas bi min su'aali wala hasbiya min su'aali elmuhu bi haali xam bi ma xam ne man jaamam la namrusa jaamam la safaram si jaamam la loolu doy na ma bu ma lakkee moom la neex lu mu dogal ci man gëm naa ko duma ko ñaan mukk boobu dafa nekk ci fanaaw jeex tàkk ci yàlla hmm? li mooy fanaaw kon dégg ngeen mbir mi hmm? waaye ba ñu demee nag ba joo ko ba joo ko ba ko sànni ci safara si ah ci la yàlla waxe qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla naan xaalu ci lañ ne xariquhu lakk leen ko wanzur ngeen dimbale alihatakum seen yàlla yi in kuntum dem nekk ngeen faay leen di waay jëf xul naa ci lañ waxee yaa naaru kuuni yaa naaru eyow safara si kuuni nekkal bardan di seddaay bu ne woon seddaay rek kon seddaay rey ko waaye mu ne ak jàmm ala ibrahim wa araadu nommoon nañu bii ca moom kay dan pere fa jaal naa ñu mu jël leen al axsarina ñoo di gën a perte waaye perte yi ndeke boo ànd ak yàlla dara du la mun te boobu ibrahima gone la yàlla yónnee ko ko waaye moo tax yàlla def ko xut bu tawhid moom am na benn doomi baayam seen ñaari baay ñoo bokk te mooy luut yonent yàlla luut ki ko jur mooy xaaraan ibrahima ki ko jur mooy taaruux ñoom ñaar benn góor moo leen jur ah moom luut yàlla mi ngi ko yebaloon ci dëkk bu ñu dee sadum sadum dañ doon def góor jigéen du xam ngeen góor jigéen mooy góor ak góor di sëy lii araam ba léegi feebar bii ngeen di dégg ñu naan cosaan nga fa la góor ak góor di sëy ah léegi dem nañ ba jigéen ak jigéen dañuy sëy dem nañ ba léegi dañoo defar ay matériel da nga koy jigéen daf koy monter ci courant monteel ko boppam muy seeg moom naka góor lii lépp tey am na jamono ji ñu def ay canal spécial ay télévision du ñu génnee dara bu dul góor bu futteeku ay jigéen yu futteeku ñuy sëy li waroon a nekk ci biir néeg ñu teg ko ci biti xale yi di ko seetaan suñu réew yi ñu ngi yëg loola la ñu bàyyi nit ñi di ci abonné kon xam nga ñi seen jikko baaxul boo nekkee ay njiit ci réew dangay aar sa waa réew waaye dem nañ ba xale yi ñàkk nañu jom dem nañ ba xale yi niteetuñu te kat koo ci gis julli dee ci ëpp de julli wallaahi julli dee ci ëpp kon dëkk boobale góor jigéen rek lañ doon def góor jigéen araam na de dëkk boobu nag góor jigéen rek lañ doon def yàlla yebal ay malayka ci ñoom pour ñu alag leen wa luutan na nga fàttale ko yonent yàlla luut wal na jey naa musal nañ ko wa luutan ak luut ilal ard jëm ci suuf allati suuf sa nga xam ne baarak na barkel nañu fiyaa ca suuf soo lil aalami na ñeel doomi aadama yi wa wahab naa ci la ñu mayee lahu ñeel ibrahim doomam ba te mooy isxaaqa ah. isxaaqa moo jur yaaqub yaaqub boobale moom moo jur yonent yàlla yuusuf waaye moo dellu jur ku ñu tuddee ays ays moo jur ayub ayub mooy maamu zulkifli naafilatan lii di aw ndollent wa kullan ku mu doon ci ñoom de jaal naa mu jël nañ ko saalihiina ñuy waay baax wa jaal naa am defal mu jël nañ leen def nañ leen ay mata ñuy ay njiit yahduna di gindee bi amri naa suñu mbir wa aw xay naa ñu juux ileem jëm ca ñoom fii lal xayraati def lu baax dong loolu la yàlla digaloon ñooñu wa ita wa iqaami salaati taxawal julli wa itaay zakaati joxe azaka wa kaanu nekkoon nañu abidi abidin di waaye jaamu la naa ñeel ñu wa luutan fàttaleku luut atey naaw joxoon nañ ko hukman aw xereñ wa elman ak xam-xam war na jey naaw ñu musal ko minal xarati ci dëkk allati dëkk ba nga xam ne kaanat nekkoon na te amul di jëf alxabaay lu bon innahum naka nyom day kaanu nekkoon nañu xawma saw in ay nit ñu bon faasiqin ay kaccoor kon mbir maa ngi noonale kon kenn ku nekk na jema yar domam ah super café yi ngeen di gis ah du super café ñu def ci ay ordinateur wala li angalaan computer xale yi dugg ca doow ne dañ fay dem dolle ko xam-xam de filmu x rek lañ fay seet jigéen yu futteeku góor ñu futteeku di sëy rek lii lépp ñu ngi koy yëg ci réew mi te waxuñ ci dara te nee nañu quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinze pour cent lépp ay jullit lañ ana suñu lislaam lislaam dëgg-dëgg buñ ko appliqué woon wallaay suñu réew mi day fekk passé na fii bu yàgg waaye ñu ngi dellu gannaaw rek ñu ngi gën a dellu gannaaw rek mina saalihiina mi ngi bokkoon ci waay baax yi wa nuuxan fàttalekul nuux yonte yàlla nuux is ba nga xamee ne naa daa woote na min xablu ca njëkk fas sa jab naa ñu sàkkoo wuyu lahu ñeel ko fan na jeenaaw ñu musal ko wa ahlaw ak njobootam minal kar bi ca mball ga minal kar bi ca njàqar ba al azim bay aji màgg wa sax naaw ñu dimbale ko minal xaw mi ci nit ña allazina nit ña nga xam ne kazabu fen loo nañ bi aayat naa suñu aaya na naka ñoom day kaanu nekkoon nañu ma saw in di ay nit ñu bon faax naaw ñu labal lañ aj may na mboole seen ñu ngi ñëw ci daawuda ak suleymaan daawuda ku neex baat la woon moom la yàlla joxoon zabuur bu doon jàng téeréem ba njanaaw yi sax duñu mën a demati dañuy déew rek njaay àll yi duñu mën a demati ku neex baat la woon moom mooy bàyyi yonante yàlla suleymaan dafa am yu xewoon mu àtte ci dara suleymaan àtte àtte gu gën a rafet bosam ma jamonoy doom moo ñëw baay bu wutoo doom bu wutoo baay coono baay jeex na dafa am koo xam ne ay juram dañoo dugg ci toolu kii daal di ko yàq lool ñu ñëw ci daawuda ne ko daal kii ay juram dafa yàq suñu tool mu ne ko seetal ndax tolloon na ak sa jur ga mu ne ko waa tolloo nañu mu ne jëlal jur ba xam nga li atte bi gaaw na lool lekk nañ sa tool seetal la mu lekk ndax tolloo na ak njëg jur ba nga jël jur ba xam nga lii diis na Suleymaan ne déedéet yóbbul jur bi nga di ko jëriñoo ngay defal toolam bés bu melee na mu meloon nga delloo ko juram mu delloo sa tool xam nga lii de moo gën a dal xel Suleymaan moo atte lii gannaaw atte baayam ñaareel bi ñaari jigéen dem ci àll bi ñu ngay taxan ñu taxan ba pare till daal di génn ci biir àll bi daal di jël doomi kenn ci ñoom ñoom ñoom ñu daw song benn doom bi kenn ku kenn ku nekk ne woy sama doom la bàyyi fii kenn nangul ne sa doom la yóbbu bañ demee ci yonteelu Daawuda mu ne kan moo ci gën a mag ñu ne kii moo gën a mag mu ne mag dana jombale boppam fen jëlal xale bi yow la sa doom dem xam nga lii diis na Souleymane ba ñu génnee mu ne sama bàyyi loolu la atte ñu ne ko waaw mu ne kaa man ma atte mu génne benn paaka ne kii téyel tànk bi kii téy tànk bi mu ne kii tànk bi kii téy tànk bi mu xàcc kenn ki daal di bàyyi ne man bàyyeel naa ko ko mu ne ko yaay yaayam jëlal kale bëgg na mu dagg ko comme doomam dem na ñu yem ki ko bàyyi nag doomam la ndax kenn bëggul gis ñuy rey sa doom moo tax bu leen xeeb benn borom xam-xam déedéet maa ko jur mun na laa raw ci xam-xam maa ko jàngal mun na laa raw ci xam am na ku nekkoon sa maître ci primaire bi moom baccalauréat la am yow nga am maîtrise am DEA am licence am doctorat te moo la jàngaloon bu leen xeeb kenn mooy li ma leen fi doon nettali démb. am na ay nit ñoo xam ne dañoo déggoon benn borom xam-xam ne dañuy dem foofu la ngir wuti xam-xam ba ñu ñëwee fekk guddi na elimaan bi di julli ñu ñëw julli ci gannaam allahu akbar elimaan baa ngi jàng faatiya ndeke faatiya ba sa wérul fuñ ne wala daalina mu ne walla laaliin xayril maxduub mu ne xayril maxloobe ah ba ñu pare ñu dugg ci néeg bi kenn kenn man de duma toog fii li ñuy wut nekkul fii kii nga xam ne faatiya sax bu koy jàng du neex ku fii ku fi toog doo am xam-xam de moom mu dem ñële ñett des foofa la muy dem nag ba digg bëccëg mu tàng lool mu gis aw déeg ndox nekk ca mu ne damay sangu fii bu ma sangoo ba fa ma soog a wéy mu dugg ci biir géej gi daal sangu sangu yëgul ndeke foofu ay gaynde dañ fay naan am benn gaynde jóge ci àll bi rek daal di naan ba doy la gis yére waaja te gaynde dafa bëgg lu nooy mu tëdd ci kaw mbubu waaja waaja nekk ci biir ba sangu di neex mi ngi sangu ba sangu di naqali mi ngi sangu rek munta continuer ndax munta mënul fii day dee te bu génnee gaynde gi jàpp ko yëguñu rek sëriñ boobu mu doon naan mënul faatiya sëriñ bi nekk am na lu xew mi ngi dem foofu ànd ak ay taalibeem ñuy dox am ko ne hée léeg-léeg musiba la ñu ne lan la mu ne léeg-léeg gaynde la waaye lay nit la ci biir de du jomm moom la gaynde gi di tëru ci biti bu génnee mu lekk ko ah sëriñ mu ne ah loolu nag waruñu ko seetaan taxal ma dem suqali ko ñu ne ko gaynde mu ne ko waa ah, bàyyi leen ma suqali ko toog leen xaar ma sëriñ mu ñëw ba ci gaynde gi mu téye noppam daal di ko yëngal ne ko yow jaamu yàlla gi bàyyil jaamu yàlla gi gaynde gi yëmb rek dugg ci àll bi mu ne kaay bu ma mënta jàng faatiya bu leer mun naa dàq gaynde mu dem àll génnal nga moo tax bu leen weddi kenn bu leen weddi kenn de na fonk mboolem nitu yàlla waa na fonk mboolem nitu yàlla yi dégg nañ ko kon suleymaan ak daawuda mi ngi noonu la yàlla nee na wa daawuda fàttalekul daawuda wa suleymaana is yaxkumaani ba ñuy atte ñoom ñaar filaar si ci mbéyteef ba is nafasat waa ba mu màmmee ba mu nguufaanee ba mu foree ba mu yéyee ba mu duggee ba mu boyee fii ca tool ba xanamul xaw mi juri nit ña wukku naa nekkoon shahidin di waay seere li hukmim seen atte ga ba mu wëttee nafasat ba mu wëttee fii ca tool ga xanamul xaw juri nit ña wukku naa nekkoon shahidin di waay seere li hukmim seen ate ga fa faham na haa dégg loo nañu atte yooyu li suleymaan wa kullan ku mu doon ci ñoom atte naa dikkee nañ ko hukman aw atte wa elman ak xam wa saxar naa tàggat nañu ma a ànd ak daawuda aljibaala doji yu sabbih na ñuy sabaal wa tayru picc yi wa kunnaa nekkoon nañ faa il ndi waay def loola le wa allamnaahu xamal nañ ko moom daawuda san ata labuusin ni muy liggéeyee ay mbubbu koŋ mbubbu yoo xam ne buñ la ci dóoree xeej du dugg lakum ñeel leen li tuxsinakum ngir mu sangel leen min baasikum seeni ci seeni way so waaye faxal moo ndax yéen shaakirun du sant borom bi wali suleymaana fàttaleku leen yoon sole yonent yàlla Suleymaan riiha yàlla tàggataloon na ko ngelaw aasifatan buy fër-fëri tajri di daw bi am amri ci ndigalam ilal ardi ba ci suuf allati suuf sa nga xam ne baarak naa barkeloon nañ fiyaa ci suuf soosole te mooy baytul maqdis wa kunna nekkoon nañu aalimiina di waay xam bi kulli shay'in ci lépp mbir de wa mina shayaatin amoon na ci seytaane yi man yaxuusu na ñoo xam ne doon xuus lawu ñeel ko ci biir géej gi di ko génneel wurus ak ngalam waaye amaloon doon ko liggéeyal amalan yeneen liggéey duna zalika lu dul loola la wa kunnaa nekkoon nañ xaafisina di waaye wattu lahum ñeel leen wa ayuba la woon dafa feebaroon ba saxe soxnaam ñëw ci moom ne ko yow ayuba yow nabiyu nga ñaanal yàlla ci nubuwa gi nga am sa feebar gi daal di wér mu soxna si dunu naa nangam ci ay at musuma yëg feebar ma feebar at yu tuuti rek may joocu ci yàlla man du ma gor kon ba mu demee ne ba sax bi jëm ci làmmiñam ba la jëm ci xolam ci la soog a tawatee yàlla ne ko dangay tawat mu ne waaw danaa tawat ndax làmmiñ laa dese di la ñaan xol laa dese di la xalaat bu demee ana lan laa amati barhaamu baaun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan